woote woon benn euh, au niveau de la commune dajé bo xamné euh dañu wo couche bu nek rek euh, président ba wala présidente bi mu ñëw à la mairie pour ñu jox leen information ci li nga xamné mo xew muy euh, xeex bi ñuy xeex coronavirus moo tay ñu tek ben comité local buy lutter contre le coronavirus Le comité bobu dañu maire le médecin chef eh, du district de ko le commandant de brigade la gendarmerie le mm, commandant aux forêts le commandant service d'hygiène la Croix-Rouge l'IF IF Kermassar. jël présidente délégué de euh, président délégué de quartier yi présidente groupement femmes yi euh, OCB yi ASC yi bàjjanu gox yi maanaam jël couche population bi yëpp daal boole leen ci comité local boobu nga xam ne mooy xeex ak coronavirus bi wax leen mesures yi nga xam ne moom la président jël pour ñu mën ko appliquer waaye aussi pour ñu mën a sensibiliser suñu population pour que ñu mën a mucc ci feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus mais en même temps aussi ñu euh, def benn groupe boo xam ne comité boobu pour ñu képp ku am information mën a jël numéro yooyu woote foofu pour comité bi mën a jot information bi pour liñ ci mën a taxaw ñu taxaw ko si nu mu waree ci ni mu gën a gaawee et en même temps aussi comme niñ ko xamee rek Kër Massar dafa nekk commune boo xam ne ni muy màggee dafa gaaw dafa bëri nit transport bi dafa bëri ay garage yu fi nekk yu bëri nit ñi di ci rassembler ñu teg benn mm, comité d'hygiène boo xam ne au niveau de la mairie dina dem ci garage yi fexe bañ teg fa ay comité d'hygiène yoo xam ne bu nuñ ñëwee di bëgg jël oto dina mën a jaar ci yooyu def ko wut ay détergent yu ñuy raxasoo ay saabu ndox yooyu pour que ñuy mën a veiller ci loolu euh, pour mesure de sécurité d'hygiène yooyu ñu mën ko jël mais aussi boo xoolee ci wetu station bi rassemblement nit ñi dafa bëri am na lu ñuy wax marché noir bu fa nekk ak yooyu yëpp ñu interdire ko defar un arrêté jox ko gendarmerie interdire yooyu lu ci mel ni tamit marché hebdomadaire yi tamit ñuy def ci commune bi yëpp ñu interdire ko bàyyi ko donc euh, li ñu li ñu tëjul rek mooy xëy na marché yi ñuy duggee waaye tamit du tee dinañ fa dem sensibiliser commerçant yi ñu teg ay mesures dizaine ñoom en tant que des commerçants ak ñi nga xam ne ñooy jóge ci kër yi di ñëw di fa ndugg si ndax fépp foo xam ne rek war na nit ñi war nañ fa mën a am contact rek wala surtout tamit édifice public yi lu mel ni mairie bi lu mel ni euh, école yi ak tout ça ñu teg fa ay Eh, mesure d' hygène yoo xam ne bu nit ñi ñëwee dinañ ko mën a jëfandikoo di dugg ak génn bi eh, pour que ñu bañ am loraange ci ci ci maladie bi donc loolu daal moo tax ñu woo ñëpp tey informer population bi yëpp yee leen wax leen mesures yi jox leen ay numéro vert ba nga xam ne lépp lu xew rek incha dinañ ci mën a teel Euh, euh, waaw dooleel dooleel dooleel santé bi aussi ndax santé bi tamit boo leen di dooleel il faut nga jàppale leen ci lu mel ni ay matériel ak ay médicaments. loolu tamit mairie bi taxaw na si ba yaakaar naa ne commande bi yegsi na matériel bi yegsi na mi ngi fii ci biir mairie bi léegi nag loolu woote nañu àllarba ci suba ay 10 heures incha allah pour ñu jël ko jox ko docteur Bouna moo nga xam ne moom mooy chefu district bi. mu mën ko séddale poste de santé yi ñu fi am ndax am nañ fi lu mat juróom-benni poste de santé ak juróom-benni case de santé ak district bi mu seddale leen ko pour ñu am matériel am ay jumtu jumtuwaay yoo xam ne dinañ ñu mën a taxaw pour xeex ay jàngoro boobu waaw jërëjëf.